لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على من أرسله رحمة للعالمين وجعل دينه وشريعته خالدين هدى للناس على مر القرون أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen wax yàlla nañu yàlla may suñu àjjuma ji waxtaan wi ñuy def jàkkaarloog yéen mu fekk leen ci jàmm ak salaam di ñaan borom bi subhanahu wa itam yàlla nañ ko fekkewaat heure bii déwén kenn bañ a manqué mbokk yi ñoo ngi leen di ziyaar bu baax di leen nuyu ci dugguma at mu bees mi nga xam ne tey defe naa ñu ngi ci juróomeelu fan bi di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala euh, mu delloo si ñu ko at yu bëree bëree bëree bëri at mi passé li ci nekk ci ay jafeñ jafeñ ak ci ay mitit ak ay naqar yàlla na ànd ak at mi dem jeex at mi ñu nekk yàlla indil ñu xéewal indi ñu barke may ñu nawetu barke dindi ñu feebar yi dindi ñu jafeñ jafe yi wàññi yi tamit macha allahu taala ñàkk bakken yi ndax xam ngeen ne ren moom euh, macha allahu taala néew na famille bu déggul sigil ndigaale xanaa kay danga naan dégg naa ko benn ñaar ñett su ko defee mbokk yi tey. incha allahu taala ñu ngi fas yéene waxtaane ci fadlu shahrullahi muharram wa asura ngëneelu euh, weeru muharram ak asura muy tamxarit la nga xam ne incha allahu taala suñu yàlla mayee moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa doon dundee ak saxaabaam te mu nekk suñu miroir kon dafay jekk ñun waa TFM suñu nekkee ci weer bi te comme ñun dañuy dox ak jamono di dox ak li nga xam ne moo xew di indi ay thèmes yoo xam ne day méngaloog li xew ci jamono bi moo tax ñu ne tey ñu ngi woon euh, euh, waxtaan wi weesu ñoo ngi doon waxtaan si li nga xam ne mooy euh, ñu fàttalikuwaat suñu suñu at mi passé liñ ci def ci ay rëcc-rëcc ñaan yàlla mu baal ñu ko ñu tuubaat ñun ñëpp dellu suñu boroom raxas suñu bopp waaye rek ñu xam ne sartu tuub mooy li ngay def nga bañ cee delluwaat li des ci sa dund comme nañ ko jànge woon rek ci al ahdar yu wa surudu tawbatu an nadamu ala ma faata wa an la yauda ila zanbin fi ma baqiya min umrika loolu mooy sartu tuub nga rëccu bañ cee dellu ñuy ñaan ñun ñëpp ku dul woon matale julli nga di ko matale ku dul woon euh, woor weeru koor nga koy woor ku dul woon génne azaka ngay génne azaka ku mosul dem màkka itam nga dem màkkatal mukarrama loolu yëpp rek macha allahu taala sagam yàlla xéewalal na la lu la fa mën a yóbbu baatu seede yi nga xam noo koy waxee yeesalaat sa ngëm-ngëm duggaat ci diine li yeesluwaat seedeel sa borom ne ko ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu loolu mooy li nga xam ne ku nekk ci eh, début at mi ak ñaan yu ciy joxe incha allahu taala dinañ ci ànd ak yéen maa ngi fi toog nag ak Oustaz Assane Seck Oustaz Assane maa ngi lay massawu coono euh, rawatina fan yi gis nañu li ngeen daj ci génn àdduna suñu kilifay diine yu mag yi muy Chérif Abdoulahi Thiaw Laay suñu papa suñu kuñu ñu fonk ku ñu bëgg ndax yàlla dimbali nañu bi ñu nekkee tuut tànk nekk ay xale yu ndaw da doon ñëw Thiès foofu ci terrain Concorde du fa def ay gàmmu man sax ci laa xamee lan mooy laayeen ci kër euh, famille euh, Pape Mor la ndeysaan ak doomam yi ñoom libaas ñoom Sadio fàttewuma seen tour ba léegi de defe naa plus de quarante ans ngi di sax gisatuma leen. Mm. mais duma fàtte loolu moment yooyu su ko defee daa daayira yëpp doon ñëw. maam moom Chérif Abdoulaye cow ñu taxaw nekk ay xale yu ndaw am ay juróom benn at juróomi at di ko seetaan mu mën woy yi ñun ñëpp parce que chaque année loolu dañ ko doon marqué foofu defe naa tey waa Thiès yëpp ak waa Cité Lamy waa terrain Concorde ñoom ñëpp li may wax nii suñ ma dégloo tey dinañ xam lan la kon maa ngi leen koy jaal di ko jaal nag euh, euh, xalifa bi nga xam ne moom la fi yàlla teg di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla oyofal waaye Assane il faut que ma jaal ko itam sama càmmiñu bopp Seydina ndax Seydina dafa nekk nit koo xam ne dafa am yëg am yërmande am cofeel ci ñun ñii di jàngale diine di ko jaale itam suñu collègue ndax dama naan Cheikh Mbacke Laay moom collègue la ci ñun frère la ci ñun soppe la si ñun ndeysaan sang baa ngi nii laay maxtaar alasaan ak seeni yàlla na suuf sedd guy guy guy ci kawam te yàlla taas ñu si barkeel di ko jaal itam caw laay ndax Abba Thiaw Laye suñu digganteek moom xam nga ko di ko ñaanal yàlla na ko dëddoo jàmm ak salaam di ko laa jaal itam monsieur le ministre Diouf saar ndax euh, xam nañu sa digganteek moom xam nañu waa mairie bi yëpp ni ñu mel ak yow di ko jaal itam euh, euh, soxna Caba mi nga xam ne macha allahu taala Caba mu maam raan nga xam ne man sama doomu ndey la di ko jàll à famille lumbul si ak boomeel ñooñu nga xam ne ñoom léegi ñoom ñëpp tax na suñu famille yëpp nekk laa yéen damay wax ne ñun léegi gàmmu sax mun nañoo bañ a dem mag euh, de daakaar mun nañoo bañ a dem te ca daaka ba la ñu bokk waaye léegi euh, woote bi appel bi mënuñoo bañ a dem di ko jaale itam suñu càmmeñ sama doom sama xarit sama soppe première dame Euh, ak borom këram Tahirou Sarr Marème maa ngi la koy jaal ndax moom biir laa laayeen ci xol bi na dëkk boo taxawee këram yaa ngi tiim laa laayeen yëpp di ko ko jaal parce que xam naa ñoom tamit ni ñu toll ci biir waaye di ko jaal itam Iba Séni Iba Séni nga xam ne macha allahu taala moom it sama seex la dama koy jaale bu baax a baax a baax di wax ne oustaz euh, euh, mbir mi mu ngi noonu gis nga itam ni yàlla dogalee ñaari xalif yi demandoo Euh, Cheikh Abdourahim Seck moom it xam nga ni ñu mel ak moom xam nga soxna Faat Kayre doomam yi foofu la ñu bokk muy euh, nu mu tuddati euh, Umu Seck ak ak ak Murtala mooy mooy mooy mooy mooy moor mu moom it ndeysaan macha allahu taala bokk ci famille bi moom tamit maa ngi koy jaale Mor di ko jaale itam sëriñ bi ak sëriñ Diop ak maam Awa Si xamul sëriñ Jóobi di itam foofu la bokk di ko jaale di wax ne daal suñu xalifa yooyu dem mhm. metti nañu torop waaye Oustaz Assane nag mhm. si yàlla moom euh, su su su su su nammee ñëpp ñàkk euh, kon nag bu ko defee Oustaz euh, dama lay jox nga nuyoo ba pare am na nag yeneen yoo xam ne itam tey am nañu bu méttee méttee metti métti tey ñun musta aribaat yi mhm. mooy ñun ñuy jàngale arab ndax xam nga suñu xarit suñu genn wàll suñu lépp euh, soxna Leena Diouf mm. Ndeye Leena Diouf bu jamaatu Ibadu Rahman mm. Ndeye Leena Diouf bu Fonds sénégalais de solidarité mm. islamique Ndeye Leena Diouf bu Daara Aji Binte Thiaw ñëpp xam nañ ko dafa génn àdduna tey ci suba gi ci fajar gi léegi di secteur incha allahu taala dinañ ko indi fee ci sama jàkk ji euh, HLM Grand Yoff fa lañ koy defaree fa la ñuy defee levée du corps bi ñuy wax mboolem jullit yëpp rawatina ñuy jàng arab yëpp ma jaale leen ko Euh, di ko jaale njabootam gi yëpp di ko jaale itam euh, ñëpp rek ndax nday leena dañoo bokk man ak moom liggéeyandoo hôpital la daan teg ci mm-hmm. école à l'hôpital mm-hmm. nday leena ñoo nekkandoo woon hôpital Fann mm-hmm. morgue bi bañ koy defar ñun ñoo fa nekkandoo woon SOS ñun ñoo fa nekkandoo woon Baaqiyaatu Saalihaat nday leena euh, Alaaji Asan dafa nekkoon jigéen joo xam ne man diineem kenn mënula la koo wax ñu ngi koy ñaanal yàlla euh, yàlla na ko yàlla yërëm sànq damay mitilu di mitilu ay satu ne ma mama tànday na bu doon ñu mel ni moom rek ñooy dem du metti doomam nee na ma tey julli na fajar ba pare avant muy génn àdduna démb tey mbir mi rek yàlla na ñu ci yàlla musal di jaale nag euh, itam sama benn sœur Khady Sow fële ca France moom itam borom këram léegi nii léegi lañ ko war a denc Adja Khady Sow jëkkër ji tudd Umar mook euh, jëkkër Fat Diop ñoo bokk ndey ak baay Alassane Sow ak Fat Diop Assane yëf yi gudd na gudd boo xam ne buñ ko toppee sax thème bi duñ ci mën a waxtaan xam naa dama lay jox rek nga mottali yeneen jaal yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ak yeneen ndokkeel yi nga xam ne ma bàyyi ko yow yow tamit nga mottali ko euh, sekk jërëjëf jërëjëf alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada sayidil awalina wal axirin sayidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin Seyda ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala ñu ngi dellu di julli di sëlmal si ngën ji mbindéef sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñi nga xamante nii tudd nga leen ak ñi nga tuddul yépp ñu jiitu wuy ji suñu borom yàlla leen yàlla jéggal amiin amiin yërëm leen xaar leen aljana si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu bu baax kilifa diine diine yi nekk ci réew mi ñaanal leen suñu borom dafa leen gudd fan ak wér junj nga léegi li fi xew euh, def nañ ci ay plateau def nañ ci ay waxtaan def nañ ci ay ay ay ay yu ne fa tabarakallahu ay interview ngir rek fàttali nit ñi fàttali suñu bopp ba pare ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi bàyyeekoo li ñu fi liggéey si loo xamante nii yiw la mbaax la waaye itam lépp nekk loo xamante ne nii ay njariñ la. muy suñu maam tudd nga ko léegi Cherif Abdoulahi Thiawlaay ibnu Seyna Isa ibnu Seyna Imaam Allahi Mahdi Muntazar fii si Yoof ñu denc ko Cambérène si peggu way juróom bu tedd ba waaye ak Serigne Abdourahim Seck fële ca Canaba euh, ñaanal leen suñ borom subhaanahu wa taala yéegal leen si aljana yi gën a kawe Seydaa ni ñu koy waxtaane boobu ba léegi rek maa ngi la koy wax sànq laata ñuy tàmbali. ma ne émission yi de léegi sax boo moytu léegi mu mel ni euh, euh, ay ay avis de décès. ndax yi nga xamante ni mooy xew te mënul ñàkk. ñu ko fi ñu ko fi tudd. ndax ñi nga fi lim fa tabarakallahu macha allah dañuy safoo émission bi bëgg diine bëgg képp koo xamante ni da ngay toog naan yàlla nee na wala sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na yaa koy junj léegi noonu mu amee noonu la amee tamit si. kër gi mhm. ndax boo jëlee ku mel ni madame Guissé mhm. gorom El Hadji Samba Guissé mhm. génn na àdduna ñu denc ko daara yal na ko yàlla jéggal yërëm ko xaare ko aljana si barke sallallahu madame gise ku baax la ndax liggéey rek lay def suba ba ngoon macha allah kon lu mel nii bu wàccee si këram wàcc na si kër gi yëpp ñu ngi koy jaal bu baax a baax di ko masaw day bint ci am waaye itam di masaw ñaatam ba moom dafa ñàkk way juróom bu jigéen démb di ajaa Fama Sow fa xombal kon ñaatam moom itam ñu ngi koy masaw semaine bii rek ñu ngi déggante manaakaan nag caméra mu ne ma dolli leen ñaan rek yàlla baax na ndekete boobu suñu borom subhaanahu wa taala namateefam soreetul si Adja Fama yàlla na ko yàlla jéggal yërëm ko fi tudd ñëpp fi ñu fetewoon woon seen njaboot yàlla leen fa yàlla féete amiin amiin yaa rabbal aalamiin sama xel dem na Seyda ma delloo la kàddu gi ku ñu wax Oumou ñas moom mooy kii semaine passée rek dégg mën la am na ku ma woo ne ma séeram dafa nekk comment nañ ko ñaanal uh-huh. yàlla dogal si diggante bi way juróom bu jigéen génn àdduna di uh-huh. ajaa yaayu jaxate kon umu ñu ngi koy massawu Seyda uh-huh. nit ñi nañu gën a takkaat la xasaay ndax li ñu fas yéene waxtaane tey di thème bi di ngëneelu muharram wax nañ ko aljuma bi passé liñ si war a njëkk a jàngat bokk na si mooy li nga xamante ne nii mooy li ñu def daaw ak ren ñi dem mhm. daaw fekkoon na leen fi mhm. waaye at mu bees mi suñ borom subhanahu wa taala dogal na ne du leen fi fekk mhm. ñu ngi fi ñu ngi ndefi ba si kanam yàlla na yàlla na àpp sore waaye xamuñ kañ la xamuñ fan la xamuñ naka la kon nit ñi nañu gën a góorgóorlu Seyda àddina mm-hmm. mm-hmm. bi jeex na ba noppi àdduna bi jeex na ba noppi lu fi amul woon dootu fi amaat mais nit ñi ñoo war a mm-hmm. te teel a dellu si yàlla balaa ñu leen di delloo si yàlla xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu nit nag bu la wóoree na bés dana ñëw ñu takk la sang sang la sang la sang la gas dugal la sa kon loolu war naa ku nekk waajal ko bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. na yàlla dolli yërmande si ñi dem thème bi nag comme ni nga ko waxee tey mm-hmm. mooy ngëneelu muharram mm-hmm. muharram nag bu ñu ko waxee mooy eh, weeru tamxarit nga xam na tey la am juróomi fan suñu juumul wala ñeent yu ko jege yooyu daal donc mu nekk loo xamante ni lu bëri nag ñu ngi ko siy def te du alquran du sunna waaye lii suñu wayjur bu baaxoo di wax rek alxaaji Moustapha Guèye da mm-hmm. yàlla guddal fanam mm-hmm. bàyyi ko fi mm-hmm. nee na ñun Sénégal ay tuubeen lañu wallaay wallaay wallaay tuubeen dëgg moom day bëri loo xam ne da koy jaxase defe ne diine la wala sunna la te bokk si tudde ko sunna fekk du bokk si Seyda dañu ma lay bàyyi ñu tàmbali tëmb rek incha allah bu ci kanamee ñu ñëwaat gën a yaatal li nga xamante ne moom mooy tomb yu am solo yooyu ngir nit ñi mën a ràññee li ñu war a def ak li ñu war a def ndax Seyda question bi ma lay njëkk a jox sax nga yóbbaale ko. Mhm. ndax tam xarit feet la si jullit yi. waaw <laughs> Assane loolu am na solo di wax ne même euh, Aboula bu mu nee ubbi téléphone yi mhm. tamit. am na ay mbokk yu ne aajo woon nañ ko. Mhm. bëgg nañu dugg ci téléphone yi pour laaj. ndax ñoom tamit ñu wax leen li nga xam ne moo dagan ak mooy li nga xam ne daganul kon euh, Laye Makhtar Alassane ak seeni euh, yow tamit ñu ngi lay jaal di jaal mm-hmm. itam sama càmmiñ Bouba Ndour xam nga ñoom ci kër gi ñoom itamit waa kër Seydina Issa lañu mm-hmm. di jaal itam Ibba moom it mm-hmm. sama sama suñu borom kër googu nga xam ne moo doon denc naa Magu Adja Dëggan Simeer ñu ngi koy jaal bu baax euh, Assane macha allahu taala Cheikh Mamour Essa mu ngi lay yóbbante nuyoo ak ziar ñu koy nuyu suñu xarit nit ku baax nit koo xam ne dañ koy bàyyi yàlla rek borom bi subhaanahu wa taala ak waajuram ba Adja Sagar Sall xam naa dafa maa xool fan yi gis ne sama borode boobu nga xam ne Umu Idrissa sol naa ko juróomi xew ndeysaan mu daal di jël euh, abbaay bi <laughs> daal di ma koy yónnee tey ne ma borodi umu euh, umu Idrissa bi euh, léegi noppal ko te te nga sol jàllaabe bi kon yaay booy gis nga yow tey dama lay bégal ba nga bég moo tax ma dóor sama jàllaabe nii xol bi neexul nag tey nag moom tey moom sama xol neexul dara dara dara dara waaye nag mënul ñàkk xam naa seen bu sekk ngay jooyati rek ndeysaan ndax moom mu ngi ci cent vingt ans yi comme nag at mu bees mi ñëw na te dañ cee war a ñaan te feebar baa ngi fi feebar bi Oustaz Assane mhm. gis nga maa ngi nii euh, ak sama gel bi mhm. waaw gel baa ngi ni xaaral ma jox la yow tamit nga laal bu baax mhm. nañ ko bàyyi xel te ñu bàyyi xel bu baax ne feebar bi delluwul ginnaaw te ñun ñoo ko mën a delloo ginnaaw gis nga màkkatal mu karama fi mu nekk ubbi nañu umra bi ndax ñoom tamit dañu ne euh, ñoom dañ ko respecté respecté masque yi respecté daanlante bi mm-hmm. ba si biir xaram bi ba si biir julli gi mm-hmm. yàllaa ngi leen di dimbali nee naa depuis daaw man ba léegi suma saa yu ma xoolee waa COSAPO dinañ koy génne waa Capio dinañ ko génne waa Renofis mhm. dinañ koy génne passé wuñu douze morts par jour mhm. te ñoom ñaata million personne lañu ñun dix-sept millions wala dix-huit millions mhm. suñu am ay trente loolu bari na ñuy ñaan euh, ñi nga xam ne ñakkooguñu ñu dem ñakku ji nañu dem ñakku ji ñakku yi macha allahu taala euh, comme ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom xam-xam waa waa kër docteur yi nee nañu ñu ñakku ñëpp amuñu cas grave si àdduna nañu dem ñàkku ji rek ndax moom dëgg la sax ku war a dem kenn mënu laa teree dem waaye wax dëgg yàlla ñàkk yi am na solo yàlla nañu yàlla dimbali nag ba ñu génn ci feebar bi ak jàng di wax ne suñu seex membre instant ngeen yokku ñaan yi rek xam nga bërki démb mhm. euh, bi nga nekkee ci plateau bi ak maam moor maa ngi leen di nuyu di leen mhm. ziyaar Euh, journée xasaayit boobu sëriñ mm-hmm. Muntaxa def dafa am solo Oustaz Assane mm-hmm. bala ñoo ñëw sax si ngëneelu mm-hmm. euh, weer bi te itam ci weer bi dafa am solo ñu def ci lu mel noonu du duwul hasard parce que sëriñ bi borom vision bu sori la muy sëriñ Muntaxa maa ngi ciy waxtaan démb rek ak euh, Samba jow jëwrin ak sama càmmeñ Alaaji Mbàkke yu fay man leen sëriñ Muntaxa nañ ko ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér gi yaram gis nga journée boobu lu waaye doon def keroog da nga koo bàyyi toog yore sa xasaayit wala nga yore sa alquran wala nga yore sa kurus te loolu gis nga dinañ gis résultat bi ndax euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waxa moomaa yantiqu anil hawa te waxoon na yu mel nii bu ñëwee ñaan rek ak sarax moo ci ëpp doole saraxu wax naa nag toujours ma wax leen ne waxuma saraxu bidaa hmm. waaye saraxu sunna laa wax saraxu sunna nag mooy lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun hmm. mooy ñu joxe li ñu bëgg hmm. jàppalante dimbalante te yàlla tax saa asa Euh, bokk na ci itam euh, li nga xam ne euh, ñu ngi ko génnee mu muy lu am solo gis nga suñu diine jii. Mm-hmm. buñ ko xeeb gis nga benn docteur bu mag bu nekk Amérique boo xam ne tour ba dama kaa mënul liir sax nekkoon ñoom ay satoog ñoom soxnaak waa Touré nii dañ ma sonal. xam nga yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ngi wax ci su sujud mm-hmm. mu ne wala qad naalamu annaka yadiqu sadruka bi maa mm-hmm. bi maa na fa sabbix bi xam xamdi rabbika wa kun min as-saajidin Mm-hmm. Ah? loolu yàlla borom bi subhaanahu wa li mu wax ci sujjuut mm-hmm. ak période bi nga koy def mm-hmm. nee nañu bu la bu la affaire bi defee attaque euh, euh, crise nee nañu bugg nañu nga jël position comme ku sujjuut nga sujjuut dina ubbi pomo yi dina tax moo tax ñuy julli di toog baax na mais nañu jéem xool rek maa ngi koy ñaan sama moroomu jigéen ñëpp ñi amee tànk ak yooyu nga xam ne ci 16 la ñuy julli mais bu fekkee sa julli nañu ba pare nañu jéem a sujjuut ñu jéem ko ñu xool rek nañ ko essayé dinañ ci gis benn njëriñ loo xam ne lu am solo la parce que man dama doon toog ci seize rek mënatuma woon ça bu ma amoon problème yooyu mais dama xëy benn bés rek ma ne was jud waxtarib asan mooy li nga gën a jege sa borom. ma ne man vraiment gis naa ne ni may toogee ci sa julli ma mm-hmm. ndax sama sujjuut sajda bi may def sama jéebi ak juróom-ñaari cër yi. dafa neex ci man ma wóor ma ne kenn gënumaa jege yàlla tey ku dul ku def comme man. Mm-hmm. kenn du la gën a jege yàlla ku dul ku def comme yow li nga def. Mm-hmm. muy sujjuut. ma ne kon daal man yàlla may ma même su ma ko dee def di yuuxu sax damay essayer rek surtout mais yàlla borom bi subhanahu wa taala wax dëgg yàlla may ma dëpp ma commencé ko yàlla may na ma ma continuer léegi mun naa di julli di sujjul fekk du ma toog ci sees te demoon naa ba xalaat ne docteur bi ne ma yow dootoo ko mënati ma jàpp ne mën mënatuma ko wante yàlla dimbali na ma ma mën ko hmm. kon tamit loolu itam mooy wone ne rek euh, il faut ku ñu jóge ci fattaqullah masataatum dem ci xàq tuqaati yi dëgg-dëgg ragal yàlla weer yëpp nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woor weeru koor ginnaaw weeru koor amul benn weer bu gën al muharram bii ñu nekk mhm. nga xam ne mooy thème bi mhm. xam nga dañu ne muharram shahrullah mhm. subhanahu wa mooy weeru yàlla kon bëgg nañu képp koo xam ne loo ci mën a yokk jaamu yàlla nga yokk ko si Mm-hmm. moo xam lu mu mënti doon nag façon jaamu yàlla bi yëpp. Mm-hmm. mais koor dafa nekk jaamu yàlla boo xam ne comme ni ko yonent bi waxoon ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala dafa ne asawmu lii wa ana ajzi bi mm-hmm. koor maa ko moom maa koy fayal sama bopp parce que man rek maa ko mën a certifié asan jaamu yàlla yëpp am na ngi sël mën naa ko def kenn mënu koo xam ba mu des koor hmm. koor yow ak yàlla hmm. moo tax koor nekk lu ama ama ama am solo hmm. kon ñuy ñaan képp koo xam ne sa santé may na la ko te fekkee ren nag mu wóorul sa asamaa déwén kon nag mooy xale nga mag nga mais major nga am nga togg nga jëf bu dee góor la gis nga yi nga war a gis pour xam ne major nga asan di nga si jaar mhm. bu dee jigéen nga gis nga baax wala sëy nga yaa ngi commencé di di di di yëg bànneex di war a sangu mhm. kooku dafa ba pare wala karaw yi fi mu doon sax muy ci sa poqataan ak ci sa suufu jumbux sax na mm-hmm. wala gént nga ba gis loo xam ne kuy ànd ak bànneex loolu lay gis xamal ne yow togg nga jëf lépp lu war sa yaay ak sa papa war na la mm-hmm. kon war ngaa góorgóorlu ci matal les cinq prières muy cinq julli yi mm-hmm. nag di ko def ci waxtu wi nga xam ne moom nga ko war a def mm-hmm. ndax inna salaata mm-hmm. kaanat alal mu'minina kitaaban mawquutan mm-hmm. julli dafa am heure Oustaz Assane kon weer wi ñu nekk loo ci def ci safaan ni bàkkaar tiyaaba yi di bëree soo defee parce que koor gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga wax nañu yonent yu bëri yoo xam ne seen jafeñ-jafeñ ci la jeexee ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala ñun suñu jafe-jafen tey mooy mooy mooy mooy mooy corona virus mm-hmm. bii mm-hmm. Mm-hmm. ak mbënn yi am ak accident yi ak euh, pauvreté bi nit ñi ñàkk gi ñu ñàkk ñu koy ñaan ak nawet bi ñu nekk yàlla nañu ko yàlla jeexalal comme ni mu ko jeexale woon yontu yàlla Moussa digganteem ak bani Israël ak na ca Ibrahima rëcce woon ca safara sa ak yeneen yi nga xam ne dinaa ko bàyyi ak yow Oustaz Assane ñuy ñaan itam borom bi subhanahu wa taala asura bi nga xam ne ci la ñu jëm si laaj nga man ne man ndax asura feet la asura du feet mm-hmm. feet si euh, si l'islam ñaar rek la korite ak tabaski beneen boo ko tuddee yaa ko ko tuddee tudde ko feet waaye du feet ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal nee na ñooñ bu nekk am na feet ina li kulli xawmin iid ñu ne xeet giir gu nekk ak uma bu nekk am na xeet ñu ne ko lan mooy suñ xeet yaa rasulallah mu ne iidul adha ak iidul fitri mhm. kon ñaar yii mooy feetu jullit yi ci la war a feetu mhm. asura du feet Asoura mm-hmm. dafa indi histoire début mm-hmm. suñu macha allahu taala euh, euh, calendrier mm-hmm. ndax xam nga weer yi macha allahu taala xam naa di nga ma ko gën a mën a liiral ndax xam naa foofu lay gën a leere ci yow xam nga fi mu nekk sa yaay moom du nanguwul takk weer euh, waaye koor gi nga xam ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala saxrullahil muharram yi nga xam ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala indi na ko nee na euh, euh, jox nañu weeru koor mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañu sitta min shawal mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam jox nañu dixième jour woor na ko mm-hmm. te li tax mu woor ko mooy bi mu gàddaayee première chose bi mu ñëw fekk ko waa waa madinatul a war munawwara dëkk bu tedd bu boobu nga xam ne namm nañ ko lool yal nañ yàlla yombaleel nuñ fa demee lu mu gën a gaawee ñu dem ziyaar rawdu ba dugg sa biir àjjana Oustaz Assane yonent bi mu ñëwee dixième jour bi dafa fekk sallallahu alayhi wa sallam juif yi di ko woor mu ne leen waaw lu xew ñu ne ko dañ koy woor ndax suñu yonent bu tedd ba Seyyidina Moussa nga xam ne moom histoire lu bëri yàlla daf ko indi ci alquran hmm. defe naa bu ma juumul mooy ki ñu gën a tudd ci alquran ak i ay jëfam ak ay mbokkam hmm. ak frère am euh, sànq damay liir xissa euh, yonent yàlla musaa Hassan ma gis fi mu àndee ak euh, banaatu su ay buy soxnaam soos mm-hmm. di dem dëkkam bi ginnaaw bi mu bi mu bi jigéen euh, euh, jigéen valeur amoon valeur mm-hmm. parce que bu ñu ne da ngay liggéey juróom-ñetti at boo matelee fukki yow la doon pour ñu soxlaa may jabar booba amoon nañu valeur boobu kenn saax saaxewuñu kenn saraxewuñu te gis nga itam ba ñuy dem ba mu yégee ne soxnaam liw na dafa dem ne xaar leen ma wuti lu leen nuggal fa muy dem fa la ko yàlla ne ko eh eh Moussa man la yàlla xoolal lu rëy inni ana rabbuka faxlaan alayka innaka bi waadil muqaddasi tuwa foofu la ko wooye mais bi Moussa xamee ne moom am na lakkin si si si si si si si làmmiñam mm-hmm. xoolal li mu ko wax daf ko ne sama rakk mm-hmm. moo ma gën a set làmmiñ mm-hmm. def ko yonant arsil Oustaz Assane tey jii am na ñoo xam ne bu doon ñoom la ñu tuddi keneen wala ñu ne ko def ma ko wala nga defaral ma sama làmmiñ man foofu tey dama toog ma gisaat taraabutul uxuwiya bi ñu war a defaat suñu biir ñun ñu bokk cofeel gi ñu war a amaat suñu biir ba yow li nga am nga mën ko partager yaaj ñi nga nekkal partage boobu dafa jafe léegi ci àdduna bi mm-hmm. ku nekk loo am danga ko bëgg téye rekk yow kese mm-hmm. Euh, doo ko doo ko bëgg a partagé doo ci bëgg a yaatal mais mm-hmm. xoolal moom mm-hmm. ni mu partagé lu toll ne ak nubuwa mm-hmm. nga ne yàlla defal ma sama frère mu nekk yonent comme man te moom moo ma gën a set làmmiñ mm-hmm. en général bi nga xam ne yow lii munoo ko sa moroom a ko mun mm-hmm. wante iñaane nga da ngay bàyyi mu yàqu moo gën nga jox ko ko mm-hmm. kon loolu jàngat la boo xam ne tey man loolu liiruma ko ci téere euh, du dara mais dama toog rek gis loolu euh, Oustaz Assane daal mu mu mu ma foofu laa lay joxe nga nga nga xam ne weer wi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woor na kon du feet fukki fan yi la woor mu ne su déwénee su ma ko fekkee. dinaa woor juróom-ñeenti fan yi comme ni comme ñoom dañoo woor démb war tey. yàlla mi dara tawul def moom fekkewu ko ndax xam ngeen 63 ans bëriwul. kon Assane. ñun tamit. nësalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo la ci war lan moo ma ci war hmm. lan moo ci war téléspectateurs yi nga xam ne hmm. ñu ngi jàkkaarloog ñun fii hmm. ci TFM Miroir du Sénégal jërëjëf Seyda jërëjëf jërëjëfati yal na yàlla gën a barkeel yàlla gën a yokk wér yàlla gën a yokk li nga xam ne moom nga mujjee daaneele léegi muy fasaaxa te tubaab bi di ko tuddee éloquence Seyda da nga indi ay tomb yu bëri yoo xamante ni bu si nekk dem la te fasantakoo na ak moroomam macha allah maanaam lépp tegu na ci li nga xamante ni moom moo di pédagogie bu njëkk bi ñëw nga ci li nga xamante ni moom moo di muharram nit ñi xam ne d'abord du feet pas du fet du lu ñuy feetu du lu ñuy ñawal du lu ñuy rendil du lu ñuy nàngamal du lu ñuy nàngamal lii nga xamante ni moom moo si sunna yonent bi sallallahu alayhi wa digle ko si wax nga ko léegi mooy woor fukkeelu fan ba mu ne déwén bu ma fi juróom-ñeenteel bi fekkee danaa ko woor ndax maa leen gën a yey si yonent yàlla Moussa alayhi salaam yonent la may yonent sama mbokkum yonent la yàlla dogal sa déwén sa fekk ko fa kon mébét boobu képp kuy jullit nga man ko war nga ko koo mën a war mën a woor ngir sàkku yiw mhm. ñu ko laajee koor gi loo si jublu mhm. mu ne li ma si jublu mooy ñaan sama borom subhaanahu wa taala mu jéggal ma samay rëcc rëcc yi weesu mhm. donte la moom jéggal nañ ko waaw waaye kon ñu la bëgg ñu jéggal ñu moo tax mu waxee noonu du dëgg kon loolu tomb la boo xam ne ku ne war nga ko bàyyi xel yi nga xamante ni moom lañ siy def nag amul dara loo xamante ni sunna la ndax bu fekkente ne dañ lay wax demal seeti borom xam-xam loolu jarul xaar tam xarit bu fekkente dañ la wax ne demal ziyaari ay armeer ñu génn àdduna sallallahu alayhi wasallam ba mu ko diglee yàgg na nee na dem leen di seeti ñi génn àdduna di leen ziyaar ñu ne ko lu tax mu ne ndax mu mën leen di fàttali àllaaxira ngeen xam ne fa ngeen jëm mm-hmm. ndax foofu rekk moom mooy kër ku ne jàppoon nga ne sa kër ak sa néeg ak sa lal fa ngay dëkk bés ñëw ñu génne la fa yóbbu la foo xam ne dootoo fa génn ba ilaa yawmi diin kon foofu moom mooy kër bu fekkente ne pour tus ngalu la wala nangam pour rafet mhm. jullit dafa war di rafet fu mu xool inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin yàlla nee na nañuy sañse mhm. di sol lu baax di sol lu rafet di xeeñ lu neex suñu ko amee mhm. rawatina bu waxtu jaamu yàlla jotee ñu lekk lu dagante teey te lew di naan lu daggante tey te lew di sol lu daggante tey te lew waaye buñ si boolee yàq ndax am na yoo xam ne yàq la yàlla nee na te man bugguma kuy yàq ndax loo xamante ni boo ko defee mu extravagant yi ëpp yow say mébét ak la nga doon doyee yëf yi am na koo xam ne loo xam jotul gannaawam mooy sarax bi nga doon wax jëlal nga dem nga jox ko li wajhi llaahi taala ndax ëllëg suñu borom subhaanahu wa taala man la boole si juróom-ñaar yi nga xam ne daf leen di dugal si keram mm-hmm. wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi bi sadaqatin fa axfaaha xatta mm-hmm. laa taalamu shimaaluhu maa tunfiqu yaminuhu sabaatun yuzilluhumu llaahu fi zillihi yawma laa zilla asan nag boobu sama xadis la moom autorisé ma kenn di ko fi jàng donc loolu tamit yëpp jàngat la. <laughs> wallaahi Seyda ñu ñëwaat tuuti. Uh-huh. nga am lu am solo loo mujjee wax. Uh-huh. muy bëggante. Uh-huh. soppante ak solidarité. xool yonte yàlla Moussa alayhi ku ne xam ne ne làmmañ bi setul taxu ko woon set. mais bi ko yàlla yónnee. ne ko demal seeti na ndax beew na. nga waxtaan ak moom si dal ak tey. ak njëkk ndax kilifa la tam la mu yor man mag ko jox. dana ko man sama làmmiñ setul. Haruna mii sama frère la. axi Haruna axi. Haruna axi. ndeysaan allahu akbar arsil maaya Haruna axi. wa afsaxu minni lisaanan ndax nga kii iñaanul. déedéet ndax Haruna mii sama frère la non seulement. te ba pare moo ma gën a set làmmiñ. waxam mooy gën a jot mooy gën a leer. te bu ko neexoon mu ne comme li nga wax yàlla defaral ma sama làmmiñ. Mm-hmm. bu ko neexoon mu ne yàlla bàyyil ma dem su ma waxee bu ma comprendre bu ñu comprendre tamit ma xam ne man jottali na wala bu ko neexoon mu ne Harouna kañ dem bu ñu àndee bu ma waxee bu leerul nga jottali mais dana yàlla garaat bu ñu ma tappal tappal ko ko ñu ànd ma ak moom wallaahi wallaahi laa yakmalu imaanul mar'i hattaa yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi loolu lañ siy déggee mooy bu fekkente ne dafa am foo bëgg yegg sa suñ borom li nga yéene sa bopp man li ma bëggal sama bopp naa la ko bëggal Seyda Fatou Bintou wallaahi li li yonte yàlla ñi bokk ndey ak baay. Mm-hmm. wala bokk ndey wala bokk baay wala benn deret wala cousin cousine ñooy xiiroo ñooy ñaayoo. ñooy naan di meroo sax di meroo. nekk ci benn famille du ñu tuddante. Seyda ah, xoolal seeni doom du ñu xamante. analyse bi nga def dafa yéeme. ndax li nga wax ni dafa yéeme. parce que man su ma sañoon dama naan lan yow suñu borom moo la ilham loolu. ndax tafaasir bu ne gis naa ko wala yu bëri bokk liir naa ko mais analyse bi nga def si aaya bi maa ngi koy door a dégg. ñàkk ki ñaan bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam ñàkk ki ñaan ba ne suñ proposé yàlla ndax la léeg suñ borom boo ko proposé mu nangu ud'uuni astajib ko ah. moo ñaan yàlla ne ko defal ma sama frère yoon yow boo nekkee milliardaire ñaanal yàlla ne ko sama frère yàlla doon milliardaire te sa ñaan sa sa frère uh-huh. pour mu nekk milliardaire xam nga mooy lan uh-huh. mooy nga yëkkati jox ko financé ko mu liggéey am comme yow wallaahi moo gën nga toog rek yow di ko dimbali. cinq mille francs ah, dix mille francs deux mille waaw deux mille xaru tabaski poojut wala boo solee yére ba nga xam ne euh, soxlaatoo ko nga jox ko wala sa jabar ak ginax yi ba mu ba mu wala nga xam ne xamatoo foo ko denc comme ni nga koy nettalee toujours rek donc yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni dañ ko war a bàyyi xel ñu noonu gis nga Seyda dafa ñëw pour nekk solution si problème yi nga xamante moom la ñuy dundee mais fi ma lay delloowaat kàddu gi rek mooy fi nga xamante ni moom nga waxaat léegi muy valeur bu jigéen. xoolal koo xam ne dañ la sàmmaloo huit ans. huit ans ne la boo mottalee ñaar mu mat fukk tamit ba tey du ko yàq. dix ans ngay liggéey di di di dajale si waxin pour ñu mën na may soxna muy diggante yonte yàlla Shuaib alayhi salaam ak yonte yàlla Moussa alayhi salaam ngir mu may ko doomam. maanaam dafa am loo xamante ni bu bu yombee li ñu naan bu for yombee sëgg jafe. sëgg jafe. te dafa am loo xamante ni bu yombee trop du baax. mais loolu la say déggee tamit mooy nit danga war a góor góorgóorlu lu mu métti métti ngay daan sa doole di dundal sa ñaq parce que c'est très important fi ma beneen bi nag mooy nit ñi nañu bàyyi bu tam xarit jotee. ñu génn si mbedd yi. di tëbaxadal ak a tëgg ko fecc ak a nangam ki nangam ak ki nangam. lu baax nag bu dee ñaan la ay ixlaas yu ñu lay jox. wala ay basmala loolu soxlaawul tam xarit jour boo ko mënee. def ko laa ilaha illallah jour boo ko mënee def ko salaatu ala nabi bés boo ko mënee def ko mais yi ñu def yëpp lenn daal moom moo si sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bàyyi ko fi te mooy woor fukk juróom-ñeenteelu fan bi ak fukkeelu fan bi li si des yëpp nag bu dee si lislaam la jokk lu ni jàng alquran kenn mënu ko tere bu dee tudd yàlla kenn mënu ko tere bu dee leneen kenn mënu ko tere nit mais ñu xam ne daal du dara loo xamante ni luñ si sunnaal la ne boo ko deful si guddi tam xarit wala bésu tam xarit yar bi dalay dal wala doo am tuyaaba wala dañ lay bindal ay bàkkaar sayda xam nga oustaz maa ngi remercier bu baax Seyda Fatou Kane mhm. ndeysaan kii yi may kii ni gëstu bi moom moo ko def ak boroom këram Alpha Aw mhm. si sa goro maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar ak waa Pikine yëpp sa Alimatu Kamara dugg na sànq mhm. bi mu yëgee génn àdduna soxna Ndey Leena bi mu ngi jaale moom tamit ak euh, ñoom soxna Ana Ndiaye waa daara ji yëpp Abou Ousmane Nahdi dafa wax ne Euh, nee na euh, waa saxaabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa ahlu ak salafiyun yi hmm. nee na dañu fonkoon ñetti fukk yi muy ashara awaaxir min ramadaan. fukki fan yi mujj ci weeru. ci weeru koor ak ashara euh, al awail min hmm. zilhijja fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski. ak ashara. awail min sahri muharram ak fukki fan yi ñoo xam ne ci la ñuy nekk ci la ñu nekk nii fan jiitu ci weeru ci weeru fii ba fii ba tamxarit euh, Sénégal euh, soo seetaanee tey euh, tele ñëpp ñu ngi def publicité cere yi ñuy jaay ndawal a ngi dugal ñuy jaay tomaat ñuy jaay yëpp ñu ngi jublu rek ci cere cere cere cere cere te cere li mu yàq ci Sénégal ak li mu rey ci senegal kenn xamul nu mu ah bëri na borom kër goo xam ne ba su tam ba mu reeree cere ja ca la génne àdduna bëri na koo xam ne tibb kol-kolal booba mu jëloon teg ko ñu xëy suba tuufoo ko ca la seen bët ya infecté infecté ah ca la ñu ca la ñu jëlee seen bët yi yàqu parce que ñeexu diwlin bu ñu taalaale kaaneeg poobar ak soble ak yàpp nga tibb ko mu mu mu mu mu mu mu mu yàqu ënn nga xëy suba nal ko def ko ci ndox tuuf ko say waa kër. musiba am na musiba am shirk bi si ne mooy ñu xëy di la xoolloo jant bi di la fenloo. ne la Fatimatu Bintu fee moo doon fóot ne ba tuur na bu la baa nga ne ngay xool jant bi naan wax nga dëgg ma nga nee ma nga ne ah ñëpp xëy suba tus nga lu jàkkaarloog jant bi or que temps boobu ngay perdal noon nga ci jàng alquran mënoon nga ci naafila mënoon nga ci eh, zikr mënoon nga ci dem jokk mbokk mënoon mm-hmm. nga ci seeti ku feebar mënoon mm-hmm. nga ci jaale ji mënoon mm-hmm. nga ci euh, euh, toog sax yar sa njaboot mënoon nga ci toog génn sa sa sa say say mbooti kër sa grand ménage nga def ko ci nga taxaw ay temps di xool loo xam ne amul bopp amul genn dégg loolu yëpp nekk ay mbir yoo xam ne liñ la ciy digal xëj na liñ ci wax yëpp yi nga xam ne lu mel ni dagg ay wee euh, watu euh, seeti ji raay bopp jirim mm. loolu du bésu asura rek loolu jullit daf ko war a def loolu moom mm. nekkul lu araam mm. nekkul lu ñu tere nekkul itam loo xam ne bidaa bu kii la mais doo xaar ba at bi da nga soog koo def mooy lislaam ngi lay jàngal ne la loolu da nga ko def war a def tous les jours sangu jullit su sorowatina feebar bi képp ku génn boo ñibbisee war ngaa dugg sa toilette sangu dëgg dëgg képp koo xam ne waxtu julli jot na war ngaa yeesalaat sa njàpp même bu tojul sax pour au moins li ñu santaane ci raxasu fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku am dex bu nekk sa buntu kër nga ciy soobu juróomi yoon ndax dara dina des tilim ci sa yaram ñu ne déedéet yaa rasulallah mu ne loolu mooy juróomeelu juróomi jàpp yi boole ci tam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko waxee ne ko yow sa comme ñun nee nga yow ñun duñ say euh, say say say say xarit. say euh, ay saxaabi lañu. waaye say xarit mooy ñëw ñëw ëllëg. kuntum xayra ummatin naa si boobu te am amaru bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari ñooñu yonent bi ñi mu jàppale mooy xeetam mooy ñun ñi ñun ñu ñëw ginnaawam gisuñu ko te gën koo gëm. Mm-hmm. mu ne ñu ne ko waa léegi yowmal qiyaamati ñun bu ñu deewee comme. ca la ñuy dajale mbooleem ku mës a judd ba keroog ay milliare milliare doomu aadama. Mhm. ñun suñu xeet yow ñu kon yow noo ñuy xàmmee. Mhm. mu ne mu ne inna ummati yaatuuna yawmal qiyaamati xurran muhazzaniin fa man yuridu an yutila mhm. mu ne sama xeet yawmal qiyaamati bu ñu dekkee. cëruñ jàpp yi nga xam ne moom lañuy jàpp day nekk al ay lumière. moo tax képp ku bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci xeetam mm. soo dekkee ci sa bàmmeel def yaram xam nga bu ñu dekkee ñun ñëpp yaram mu neen la ñuy dekkee moo tax sama turandoo sifta Fatima yàlla euh, na ko yàlla dolli leer te kontaan ci moom radiyallahu anha sayyidatu nisaa al janna nga xam ne moom mooy sang jigéenu àjjana yépp moom Fatimatu bintu Muhammad sallallahu mu ne papa man sama problème yëpp mooy bu ñu dekkee ëllëg yowmal xiyaamati ak yaramu neen suñu cër yi ñëpp jàkkaarlu mu ne ko doom bés boobu nit dina tal leneen lu dul xool ay cër cëru moroomam mais ñun ñi nga xam ne ñooy xeetu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam usa hasan suñu ñëwee suñu cër yi cëru njàpp yëpp lumière lay nekk nekk ay projecteur di tàkk da ngay gis sax ñi nga xam ne bokkuñu si ñun di mm-hmm. wax xaar leen ñu. unzuruna si min nuurikum waraakum dañuy dañuy bëgg a ñëw di ñu wax ay waay xaar leen ñu pour ngeen nii ñu. mu ngi mel ne rek bu courant coupé ba nit ñi taal portable yi. nga gis lumière bi. ñun nag niital ma niital te ñun nag nit kooku nag day nekk si ñun waaye ñan la mooy ñi nga xam ne ñooy jàpp fu ñu toll. moo tax yonante bi ne bu man araada an yu tiila urratahu falyafal moo tax mag ñi kenn du ñoom dégg naa suñu maam Seydi Hadj Malick wala Serigne Babacar xaw ma kan la ti ci nettali nañ ko ñu ne dañ door am ñuy critiquer laayeen yi ñu ne ko ah sang bi ñu de laayeen dem nañ fa waaye ñoom bu ñuy jàpp dañuy jàpp ba ci seeni óom waaw jàpp euh, seen loxo yi ba ci kaw mu ne ah ñooñ day dégg nañu kon sunna yonante bi ndax yonante bi dafa ne ba man ba euh, man araada an yuti la urratahu fal yafaal kon ñoom fexe nañu ba léegi man su may jàpp il faut ma may yéeg du ma yem ci kaabay ni waaye damay dem ba rukk ba umm, tey mun na nekk nee naa mun nga xëy su ma xëyee man dinaa nekk tiijaan bu wasifa jotee ak laasim bu ma paree dinaa dem ma axuus la ma ca mën a def ma nekkaat murit ci yoor yoor bi def durus waaw def durus bu ma xasaayit yi bu ñëwee ma jàng sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama xasaayit ndax am na ci secret yoo xam ne nag sëñ Tuubaa rek ko ko joxee ah moo ko joxee ci biir am na ay ay dagg-dagg yu ñu def dajale ko ci ay majmuatul mubaarak mm-hmm. yoo xam ne macha allahu taala léeg-léeg sa xam nga léeg-léeg itam sa yaay day def affaire kii boobu <laughs> léeg-léeg am ñu ma bindal ay affaire jox leen te ci ci foofu rek nga koy jëlee génne dégg <laughs> su ko defee matlabu chifa yi man nga xam ne comme man saa yu ma xëyee damay feebar <laughs> ma matlabu chifa yi moom sama bopp lan laa ko teg dama am benn maj moo boo xam ne matlabu chifa yi moom ma nga fa moom saa yu ma xëyee moom mënuma euh, koo bañ a jàng te door ci sama yaaman azaral jamil teg ci sama ay ayatu kursi dugg am na benn dajale boo xam ne sëñ saaliwu moo ko dajale woon soxna assubaali maa ngi koy soxna assubaali maa ngi koy nuyu di ko ziyaar moo ma ko mayoon yëf yi wa in yakaadu lazina kafaru la yasiqunak bi absara mbir yooyu euh, yooyu yëpp a ngi ci biir nga dajale ko mm-hmm. oustaz loolu suñ ko defee soo ko defee bu tàkkusaanee nga dóoraat sa wasifa ak sa kii bu dee àjjuma tey nga dóor sa xadaratu juma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ci waxtu woo xam ne euh, kenn du ko ñaan bu dul ñu nangul la ko muy diggante tàkkusaan ak timis tiijaan mhm. euh, yi ñëw seex abul abbas ahmad tijani nee na dóor ci sa laa ilaha illallah mhm. xayru ma qultu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illallah dégg nga mhm. nga daal di dóor say tahlila def say basma la def say say say nu mu tuddati euh, tudd yàlla foofu ba timis jot nga tàllal ko loxo booleeg sol sa yu set yu sell gudd guddi gi itam nga fanaan ci xam nga dama wax ne lii mhm. booleeg sangu set mhm. ajjuma mhm. tooyal sa bopp tooyal ko raxas ko hygiène boobu booleeg sol yu set booleeg macha allahu di dagg say wee di di watu oustaz lii képp ku ko dëkki wér dina la yomb nga boole ci itam dem jumaa bu fekkee ne comme jumaa yi période bi nga xam ne dañ leen a tëj nga dem jumaa ak li yàlla wax ci jumaa ak ngëneel gi ci nekk mm. ak xéewal bi ki am gëléem ak kii am nag mm. kii am xar kii am béy ba kiy am ginaar ba ci nen mm-hmm. loolu nga di ko boole nga nekk ak malaaka yi di jonjanteeg ñoom ci biir jumaa ji mm. ñu lem seen fooy dégg Oustaz Assane di xutba ñu taxaw di déglu yow nga bokk si ñooñu malaaka bi jàkkaarloo miin la xam na mm-hmm. xam nga yooyu yëpp dafa nekk ay xéewal yoo xam ne. Mm-hmm. macha allahu taala ah, wax dëgg yàlla oustaz jar naa bàyyi xel. Mm-hmm. te àjjuma bu jot nit war naa bàyyi xel xaar. ndax nee nañu àjjuma la àdduna di tukki. te bés buy tukki amul waaj amul dara da ngay xëy rek. ubbi sa fenêtre. ba lieu que jant bi. fenkee mhm. macha allahu taala fii ci pénk bi mhm. nga jékki-jékki rek gis mu génn ci sow bi mhm. yàlla nag nee na loolu jafe-jafe yooyu balaa am nitu yàlla ñu baax ñëpp dañ leen di segg yóbbu leen ba tax na alhamdulilahi rabbil alamina bi nga xamee ne ñun ah ñoo ngi ñaan yàlla yooyu musibaak yooyu euh, yooyu euh, yooyu balaa yàlla bu mu fekk amiin amiin yàlla bu ñu ko fekk Moussa Assane jërëjëf Seyda jërëjëf Seyda yal na yàlla guddal sa fan amiin amiin yaa rabbal aalamiin Seyda yal na la yàlla may wér amiin ñu bokk ko Aida yal na yàlla gën a yokk fasax amin amin yaa rabbal alamin ñu bokk ko ndax euh, li nga yëkkati am na solo si fàttali si jàngale waaye itam si jàjjaat ñépp ñu gën a xam lan moom mooy seen diine nga Seyda diine dañ koy jàng mhm. kenn du ko làmbatu te Sénégal mhm. boo amul fit ñu nopp la boo amul xam-xam ñu fawee la wala ñu sànk la boo amul personnalité nag ñu waye di loola kon nit ku ne dangay ngay fexe sa diine nga jàng ko xam ko ba pare lépp loo xamante ni man nga ko si pratiquer nga def ko xoolal li nga xamante ni moom nga indi rek riimeel ñi ko si diggante Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamante ni noonu la jàngalee lan moom mooy sacerdoce de l'islam maanaam lan moom mooy cëslaay ak basul islam ak ku si nekk lan lan lan lañ la sas wax nga léegi set wax nga léegi sellal wax nga léegi fexe di jonjoo ak malaaka yi ak jubboog sa borom subhanahu wa taala gis nga Seyda li ñu yàlla may moo gën a cher mooy temps du lu ñuy sànq du lu ñuy sacrifier du lu ñuy fowe ndax dañu wax ne ñi nga xamante nii ñëw jiitu dem muy ji suñu borom subhanahu wa taala seen mébét yëpp mooy koo si laajoon ñëwaat si àdduna am fi donte la benn minute benn seconde seconde rek kese wallaahi ngir mën a rattrapé waat lu bëri wallaahi wallaahi yaa ngi dégg wallaahi waaye itam ñi nga xamante ni ñun ñoo fi desandi mhm. koo si xool mébétam yëpp mhm. mooy lëkkale di réccu mhm. kële li mu doon rëccu maanaam temps bi ngay sacrifier si ay futilité yu amul benn njariñ te tëdd bàmmeel loolu lay rëccu yow nag sama bët yëpp mooy mooy loolu te temps dafa nekk loo xamante ni lu cher la li ma bëgg a wax foofu mooy dafa am loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala su la ko mayee yàlla may na la wér yàlla may na la tal li ngay wax sa jour ak fekkee mhm. kon yow yàlla suñu borom subhanahu wa taala waxin la mhm. ngir ñu mën ñu dégg wàccoo na ak yow mhm. li si yëpp yow yaa ko war a mottali ndax inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim mm-hmm. yaa ngi koy wax léegi bi ngay yëkkati jol bi mm-hmm. naan nañuy laal jol nañuy naan nangam mais bu fekkente ne ñi yàlla dogal seen xam-xam màcc si loolu mm-hmm. lañ ñuy wax ñun bu ñu ko jëlee ñu def ko si poubelle dem sànni fële kañ la fiy jóg loolu tabax ba mu kawee bu guddee kenn ñëw toj ko yëpp waaw ñi di gas ñi di ah. suuf poussière mooy bëri poussière mooy bëri te pax du am kon nit ah. ñi nañu mm. gën a bàyyi xel suñu borom subhaanahu wa taala waaye surtout njàngale yonant bi sallallahu alayhi wa sallam sayda mm-hmm. si li nga wax gis nga jullit mm-hmm. dafa war di set fu ne ñoom mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mas na toog benn bés mu ne saxaaba yi radiyallahu anhum ajmain ma laaj leen kenn si yéen bu amoon benn dex boo xam ne dafa romb buntu këram bés bu jot mu sangu si juróomi yoon est-ce que dana tilim al yàppa min daranihi ñu ne ko déedéet laa yaa rasulallah ah. mun am ngeen dex bu jaar seen buntu kër juróom yoon bés bu ne dem leen si juróom yoon ngeen sangu ñu ne loolu moom mooy la mu a assalawaatul xams juróomi julli yi mm-hmm. bu fekkente ne da nga war a dem si toilette nga dem si toilette ba set mm-hmm. def yaa ngay def boo setee pare jàppal ba set mm-hmm. boo waree jàpp boo oustaz gis nga foofu itam toilette yi ci ndox mi euh, gis nga robine yi ñuy jàppe dafa am lu ñu ciy wax israaf yàq def cee am gis nga ku ciy jàppati rek na ub na jël benn pot. Mm-hmm. dékk ko ubbi mm-hmm. robine bi di jàpp balaa pare. Mm-hmm. buy balay sëlmu rek pot bi day fees. te ma yooyu mun na koo continuer jàppam. mun na cee massa boppam. ndax bopp dañ koy masaa kenn du ko raxas ñetti yoon. zahaban wa iyaaban la. nopp dañ koy massa nga raxas si sa tànk ci ndox mu nga xam ne bi nga ubbee robine bi mm. ci nga jàppe mm. mooy boo ubbee robine bi nga dékk raxas sa loxo mm. galax ndiku sarax ndiku fiiru sëlmu rek da ngay gis potu un litre et demi bi day fees un litre et demi boobu mun nga cee massa sa bopp def ci say nopp waaye comme yow fayoo ndox rek sa yoon nekku ci yàq boobu itam. ndaxte xam nga Sénégal usa baal ma di ci dog bi mais damay bañ mu rëcc ma. dañuy jàngal suñu njaboot jóg leen julli. Mhm. mais duñu leen wax jóg leen jàpp dem leen jàppi lañ leen di wax mais duñu leen jàngal nan la ñuy jàppi duñu leen jàngal itam même jàpp bi hatta bay na al istinshaq wal istinshar mhm. loxo mais gauche bi nga war a xam ne moo war a génnewaat fiiru bi mhm. loolu sax sunna la te duñ ko jàngal njaboot gi bay na al istinshaq ak istinchar mhm. ak ak ak kii al istinchaqu wala istinchar mhm. xam nga ñaari yooyu du benn ak fiiru ak fiiru mhm. boo fiiroo loxo ndeyjoor bi waratu koo kii càmmoñ bi moo war a utiliser ndox bi mu wàññi diggante boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne même bu doon ne ci géej ngay jàpp amoo droit pasar pasaree ndox mais xale yi lii di làmp ak ndox ameel nañ ci ak waajur yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kër yi parce que ñoom seen yoon nekkul ci facture yi du ñu fay làmp mm. du ñu tëj robinet loolu moom màkk si dugal xam naa ne dinañ ne si yaa Seyda mi xam naa day dund lu ko lu ko metti mais dafa metti sama xol te xam naa ne man maa ngi ciy xeex mm-hmm. te te te ndox nekk lu cher mm-hmm. bala nga koo xam nga romb ñi nga xam ne ñu ngi bëgg ndox te mënuñu koo am sax sax maa ngi jéggul si ndox déedéet déedéet déedéet parce que am solo parce que lii lépp day dugg ci li nga xamante mooy li ma doon wax sànq basu l'islam Seyda l'islam yàq bokk si wallaahi wala tubadir tabdiran innal mubaddirina kaanu wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuura te tey koo fi ne woon seytaane nga bu la ñemee dina yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca suratul isra wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu demee ba fa allahu akbar muy ngay ngay tourner page ba mm-hmm. sa faqar boobu yàlla mu ngi ko fay wax mu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walaa tubazir tabdiran bul yàq bul pasar pasare pasar pasare pasar pasar parce que am na loo xamante ni pasar pasare la. loo xamante ni mën nga jàpp genn wàll gi. nga ñëw ubbi rek muy sore rek. parce que doo fay ndox facture courant lu muy jar. Hmm. xamoo facture ndox lu muy jar xamoo facture sàngam lu muy jar yow daal sa soxla na nga ko bëggee na fajoo noonu la sa yoon newu si yàlla ne loolu baaxul de ndax innal mubazirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuura ndax yàqkat yi ñoo seytaane ñooy lëkkaloo. parce que xam nga lu tax. parce que seytaane kat la. yàqkat la toujours da lay day bëgg ngay abuser. maanaam di ëppal sa la ngay def. xam nga tubaab bi dafa wax ne tout habit est nuisible. lu ëpp tuuru. lu ëpp tuuru wallaay. te seytaane toujours day bëgg bu la bu jàppee bakkanu doomu aadama. tant que deful lu ëpp du ko bàyyi. wallaay bu jàppee xelu doomu aadama tant que lu ëpp du ko bàyyi. su jàppee làmmiñu doomu aadama tant que waxul lu ëpp du ko bàyyi. su jàppee tànk doomu aadama tant que demul ëpp du ko bàyyi. su jàppee loxo doomu aadama tant que deful lu ëpp du ko bàyyi. su jàppee bët tant que xoolul lu ëpp. ainsi de suite moo tax yàlla ne bu leen pasar pasare ndax seytaane day abusé kon kuy abusé yàlla nee na yow jàppal ne yaa ngi lëkkaloo ak seytaane te seytaane dafa weddi boromam moo tax muy abusé kon yow mi nga xamante da ngay abusé boo bañee dugg si gaalu seytaane fexeel ba yàq boobu na ko moytunu ko bu fekkee ne mën nga jàpp potu ndox jàppe si bu dee mën nga jàpp si benn génn wàllu un litre cinq cent moo tax suñ mag ñi satala lañ doon jël jàppukaay mais xoolal tey suñu toilette kër yëpp niñ ko tabaxee dafa mel ni ñun moomuñu suñu kër yi lawaa boobu mooy lan ñëpp ci lavabo la ñuy jàppe néew na nga dem ci toilette boo xam ne prévoir na jàppukaay ci biir douche léegi nag imaginer que sama genre gi bu ñu yëkkatee tànk ne dañu koy yéegal ca lavabo musiba mën naa am ñu bëri am nañu fumier loolu loolu buñ ci glissé ci la ñu am parce que même toilette yi norme yi ñu ko war a tabaxee mhm. tabaxe wuñ ko norme norme islam norme ajjuma bii ñu ñuy liggéeyloo pour lan xanaa moomuñu suñu dëkk xanaa amuñu indépendance 61 ans dimanche nga def lan waaw xam nga lu tax parce que dañu dañu dañu jël. yu bëri yoo xamante nii moomuñ ko. tra tey weer bii tey ñu waroon a tey muharram bi nga xam ne mooy suñu début. de l' année. ci la ñu war a souhaiter te euh, bonne heureuse année doo ko dégg ci la ñu war a bigal xale yi jëndal leen ay cadeau mais kañ la ñuy xaar. 31 décembre 31 décembre ñëpp feetu. waaw xam nga télé yeeg guirlande yeeg lumière yeeg dëkk bi ñu jël ko dëkk boo xam ne 87 pour cent wala 85 pour cent musulmans. 95 mais 95 tey gisoo fenn. fu ñu taarale dëkk bi wala fu ñu wone ne at mu bees ñëw na bu décembre nag ñu bëgg a rey nit ñi ci ay pétard ak te jullit ñi ñoo koy jënd la ma sama càmmiñu euh, euh, euh, chrétien ba waxoon mu ne ma Seyda suñu sàngara bii yéen ñii yéen a koy jënd ndax ñun mënuñoo jeexal liy dugg ci sàngara yëpp ci Sénégal. xam nga te wax na dëkk. xam nga xam nga Seyda. mooy li muy wax sànq si njëlbeen gis nga ku nekk boo xamee sa diine. Hmm. ak la la yu bëri. mën nga ko mën nga si bañ a dugg mooy li ma wax sànq si alxaj wax ko rek ay tuubeen lañu lu bëri nag dañu jël ab ko defe ne ñun ñoo ko moom fekk na yëfu jàmbur la. ñaata siècle mais mais dogguma la sax gis nga ba si yaa ngi wax euh, muharram bi ñu nekk. nga xam ne tey jii buñ ko doon comparé. dañ naan mooy suñu mois de janvier. muharram mooy weer bi jiitu si. ak calendrier musulman bi. ba pare mu bokk ci weer yi nga xamante ni suñu borom daf leen xormaal. waaw ne mooy weeram. mooy weeram loo ci def lu baax. ñu fulal la ko bari na ñoo xamante ni si période bi sax la ñuy génn bëgg di natt seen azaka di génn di nangam di nangam du dëgg foofu nag ma fàttali bu ñuy tëj mhm. ci azaka yi am na nañu benn mbokk bëgg naa après nga fàtte bu ñu desee cinq minutes dégg incha allah donc bu jotee at bi di waaj jot dañu war fàttali nit yi ne leen hey li ñu bokk mu ngi waaj a jeex lii ak lii ak lii moo si war lii ak lii ak lii moo si jaadu ku mën a bëggal jullit nga bëggal ku mën a bëggal sa njaboot nga bëggal ku mën a bëggal nangam nga bëggal mais tey demee ba suñu yëf. Mhm. yitteeluñu moo tax ñun Seyda. Mhm. nañu sant yàlla delloo bu baax Serigne Mountakha. Mbàkke njukkal Serigne Mountakha ataalallahu baqaa xam nga la moo tax ñu war ko delloo njukkal. Mhm. parce que xoolal euh, euh, euh, weer yi ñu nekk. muharram ñëw di premier weer mu ne nañu ñëw. fu waay mën a nekk jàngal alquran. jàngal xasida jullil si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santal yàlla defal lu baax parce que weer wi loo si def lu baax dañ la koy fulal mm-hmm. te bëgg na nit ñu def def lu baax suñu borom ful ko ba lépp loo xam ne ngi la ak njaaxare la ak tiis yàlla subhaanahu wa taala mën ko fi teggi mais tey xumbaay mbumbaay foo caaxaan xamuñu ne itam ni ngay defee lu baax di am tiyaaba boo defee sofaan noonu lañ la koy multiplier tamit voilà voilà donc dañuy waxtaan rek ngir fàttali suñu bopp waaye jaajjaat suñu bopp parce que uh-huh. penc mi ñëpp ñun ñoo ko bokk fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mais bu ñu demee uh-huh. dugg nañ sànq si yàq bi uh-huh. te ku xam na ne yàq baaxul tey jii nii ñëw nga tam xarit bi tam xarit bi reeru tam xarit bi tey bu fekkee ne yow jël nga dépense weer bi yëpp nga yemale ko ci benn guddi ah xam naa yaa daane mbaay moom euh, cere yi moom macha allahu taala cereem nag moom jar moom du yàq moom yaa daane mbaay moom ak aju faat bu neel yaa daane moom cereem daane mbaay cere ajaa daane mbaay ci tam xarit asan <laughs> loolu moom du yàq <laughs> donc xam nga yooyu yëpp même xam nga tey Seyda <laughs> waaw man l'islam xam nga lu lu muy bañ euh. wut benn bés ne bés bii laay yàkkale walla bés bii laay def lu baax lu baax lu baax euh. amul bés amul temps ndax xamoo kañ kañ lay jeex dañ si war a nekk saa suñ ko mënee. Mm-hmm. loolu moom mooy dëgg. Mm-hmm. ba pare ñu koy def tam fañ ko war a def. waaw ah loolu am na solo. waaw parce que doo bàyyi sa rakk nga bokk ak moom day ak bàyyi. Mm-hmm. ngeen bokk kër. nga defar sa ay cere ba bu baax. jël ay bool génn yépp dem. moom amul. ah loolu loolu jaaduwul. du lislaam wa aatul maala. ala xubbihi zawil qurba qurba waaw ki jiitu. ki jiitu mooy ki gën a jege sànq rek maa ngi déglu chaîne chaîne Médine bi. waaw ñu ne yonent sallallahu alayhi wasallam dafa am bés am ku ñëw ne ko. Mhm. sama dëkkandoo yi. Mm-hmm. kan moo gën a yey si man. Mm-hmm. mu ne ko ki ki la gën a jege buntu kër. Mm. bu mbokk gi weesoo. Mm-hmm. génnal sa buntu kër. xool ñi nga xamante ni ñoo ko yeyoo. Seydaa nit ñi dañuy def te yàlla tax. di ko def fañ ko war a def te Assane bu kenn xeeb dara. déedéet xam nga yonent bi nee na même xartaa suppu yeel yeelu xar. jarul xeeb yeelu as mbéy. jarul xam nga loolu nag maa ngi ciy sant bu baax waa HLM Grand Yoff gis nga ñun xam nga lan moo tax ñu bëri Oustaz yenn saa yi sax ma bëgg la indil lekk mais ma ragal ndax danga naan kii lan la def ci lekk bi lan la def ci naan bi mais ñun waa HLM Grand Yoff fondé yaay noo ba soow faatu ba ba wala wala cere mbuum ba jóge foofu wala ndey sëy na bu defaral ma jus wala na bu sekk defaral ma wala na bu ndey sëy na bu kamara ñun dañuy échangeante di lekkante parce que kenn ragalul sa morom daxabu waaw defalante ay teranga waay waay Sabina boobu dong la mën Aysatu nee na nee na nee na xadisam na nañ ko bàyyi moog yaayam maam awa si ñoo ko moom defalante ay teranga ñu ngi koy nuyu borom Sabina bu ngeen defalante ay teranga cofeel mën a dugg seen yëpp <laughs> wallaay wallaay bu cofeel duggee confiance am dafa confiance am jàmm rek moom moo fa am kon Seyda ma delloo la foofu jullit yi daal nañu xam ñun li ñu moom ak li ñu moomul te li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyeel ñu téye ci mooy ci fexe mu gën a rafet parce que jullit day aspirer à chaque fois muy def loo xamante ni day gën a rafet te ñu moytu sofaan moytu loo xamante ne nii ñaaw njortu moytu nit di la defal teraanga nga naan est que yàlla moo tax est-ce que wala que du sarax est dafay dafa kii du sacrifice du sacrifice du nangam du nangam man nag ku ma jox ma jël ndaxte man daal euh, man nag man ragaluma ko bu dee sacrifice sax na ñëw ndax nag yi tamit day remplacer ginaar yi nga xam ne moo doon 31 décembre ga ñu koy noose mm-hmm. kon jullit yi nga xam ne itam xeeñ na sama compagnie nga xam ne tabaski ba tabaski la ñuy gis ndawal mm-hmm. nga rey say nag mm-hmm. joxe ko ci jàkk yi ñoo ñooñu lekk ak seen njaboot loolu lislaam terewu ko moo xam dañ koy baasi salté moo xam dañ koy tufe moo xam dañ koy vermicelle moo xam dañ koy couscous par forcement rek ñu war koo cere mun nañ koo vermicelle mun nañ ko couscous mun mun nañ koo def yooyu yëpp mun nañ koo def fit soosu yaa daane mbaay <laughs> ba pare Euh, asura euh, bi ñu bëri dañuy defe ne euh, pour ñoom asura ba asura rek la ñu war a génne asaka mais sa alal ji nga denc. Mhm. saa yu matee at rek atal rek war nga koo génneel. Mhm. xam naa suñu papa Mor Mbay mhm. war nañu ko invité waat mu ñëw ak oustaz Ismaïla Dem. pour ñu ñëw waxtaan nañ ñu itam. yokk ñu si azaka comme moom tamit macha allah ni mu meloon ci miiras mi mm-hmm. nee na am na yu bëri oustaz Mor bu tiwaawoon ñu ngi nee na mm-hmm. bëgg na indil ñu lu mm-hmm. bëri ci ci azaka bi ndax azaka bi kii na oustaz foofu li ma siy kii rek mooy ñi jël azaka di ko tas di ko def ay mille francs mille francs mille francs joxoon lépp oustaz Assane oustaz Assane ubbi ci société boo xam ne dina tax bu déwénee oustaz Assane joxe mu ëpp tuyaaba loolu tamit am na solo dëgg la li nga wax lu am solo la parce waaw defe naa ah, Aboulaye nee na nee na bi ah, jeex na waaw c'est parce que ñoo ngi vingt neuf mhm. benn minute la ñu dese mhm. euh, comme léegi fon sénégalais de solidarité maa ngi naan Adja Ndeye Lena Diouf démb rek ñu ngi doon ñaanal suñu papa euh, kii euh, ndeysaan macha allahu taala mhm. suñu yaay Ami Ndiaye suñu papa Youssouf Soumaré ak Ousmane Fall Ta Ndeye Fall Adja Adja xujja joxaane mhm. ñu ngi koy jaal bu baax nday leen a juuf ndax moo ñu yóbboon na daan teg ñuy def école à l'hôpital koraanik mhm. ak SOS euh, ak hôpital Fann mhm. ñu ngi leen di jaale bu baax di wax ne démb jàng nañu kaamil ñaanal alaaji Mass Meng sa nijaay masha allah taala ñaanal laale mboolem woy dawli rawatina Adja Khady Sow ca France borom kër gi nga xam ne Oumar Sow bokk ak Alassane Sow mi nga xam ne mooy jëkkëru sa xarit Fatou Sy Mansour mhm. heure bii nii lañ ko war a denc dañ ne dañoom dañ sax duñ ko indi ndax njabootam fa la nekk fa lañ koy denc mais yëpp benn la yëpp benn la Oustaz Assane ma jox la mhm. euh, li ma lay waxee mooy dañu am benn mbokk mhm, boo xam ne si ñun la bokk nekk xale bu jigéen bëgg diine dund sunna yàlla dogal ci taw bi nii seen kër tabax bi daanu oh. néegam daanu fi mu oh. nekk amul fu mu dëkk allahu te amul boroom kër. Hmm. Euh, ci daara yi rek lay fortaatu te xam nga daara yooyu. boo sa jëlee looy jënd sa effet de toilette dara du ca des. ñuy ñaan nag ñi nga xam ne am nañu azaka bëgg a def ngir yàlla. Hmm. ñu ngi leen di ñaan ne buntu yiw a ngi nii. Hmm. mbokk moomu képp ku ko mën a dimbali. nga dimbali ko ngir yàlla. Euh, ci loolu mooy mu am fu mu dëkk amul fu mu dëkk nii actuellement mm. te jàngalekatu alquran la mm. xale bu jigéen la mm. ku sañewu la koo xam ne bëgguy lenn caaxaan léppam foo ko gis rek ci alquran lay dox di dund sunnam kon kooku bu néegam daanoo ñun jullit ñi man dey bu ma ko amoon tey dinaa ko waaye xam ngeen ne ni yëf yi demee waaye ñi nga xam ne am nañu yaakaar si ñoom ñu mel ni si ñoom tonto askia ñu mel ni maître Tamaro Seydi ñu mel ni euh, soxna umu Euh, Idrissa Gueye ñoom ñëpp ñoom xaaju Tahirou Sarr Marème Sy première dame ak première dame sax Marème Faye parce que keroog gis naa ko mu def itam benn gest bu rafet mm. woote ci émission Ahmed Aïdara ak ak ak euh, Iran ne malade yooyu nekk foofu yëpp indi ma leen ma leen altine wax dëgg yàlla première dame ñu ngi koy rafet li moom dinañ si doguma la Seyda insha allahu taala kii nga xamante ni moom ngay wax ne euh, taw bi dafa daaneel fa mu dëkkoon. fa mu dëkkoon te loxoom jotul gannaaw. waaw première dame. Mm-hmm. Euh, dégg nañu. Mm-hmm. te dina ci def ay jéego. Mm-hmm. te incha allah dinañ ko waxaat fii aljuma bi ñëw si kàntanu yàlla ak mbaaxam. bëgg naa daal ku ko jàppale daal Touré Hadj Tahirou Sarr. waaw moom ngeen di woo fàttewuñu Abdourahmane Dieye bu duwaan moom itam. waaw Abdourahmane waaw may nuyu yaayam ak Yacine Diagne. Yacine wal Quran borom HLM Thiali Thiès. maam Yacine maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. lépp waaye nag euh, ñaanalal ma yàlla sama yaay ji Adja Sagar Sall. waaw Adja na ne sama borodi Oumou Idrissa bee sàppi na ko mu daal di may jox robe bu rafet bi nee naa ko tey sax euh, madame Ba itam ñu ngi koy nuyu di ko ndokkeel mook juulte mm-hmm. démb dañoo def lu rafet ci mm-hmm. xewu amana Amina Poté bi mm-hmm. ñuy ndokkeel Amina Poté sëyam bi yàlla na barkeel yàlla na ci toog ba gis ci ay waxuma ay doom waaye ay sëtam yal na nekk mu jëntalu sëyam ci kaw suuf mu ànd kook jëkkëram ba ñu dund téeméeri at ak ñaar fukk yi nga xam ne moom la ajaana bu sekk di ñaan Oumou Ndiaye madame Ba def dañoo def démb defal ko waa tele bi yëpp. mooy dem jaboote ànd ak Amina Poté jàppale ko toog ak moom def seeni teraanga Fatou Gueye mu ngi lay nuyu ñu ngi koy nuyu bu baax bébé baas jabaru Pape Diouf ak ñoom Viviane ñëpp a nga fa woon macha allah ndokkeel bu baax a baax a baax dañ ciy ndokkeel borom kër gi waaw président Youssou Ndour waaw ah yow dégg naa yéen a doon papa yi am solo boobu nee naa ko sax yàlla na ci am <laughs> turandoo amiin amiin amiin mais biraan dañuy tudde doom bi nag bu ñëwee <laughs> yëpp képp ku bokk groupe Futurs Médias jàpp na la téye la téye la te loolu dafa am solo donc dañuy ñaan Amina sëyim bi yàlla def si barke waaye yemul si moom buuba njaga ñoom ñëpp biraan ñëpp jàpp waa kër gi waaye euh, démb rek li ñu fa wax bi ñu koy may borom kër. may ziar alxaaji Idrissa Gaye oustaz. waaw macha allah ak ak soxnaam nga xam ne mooy premier njëkkam. soxna Fatou Sow Suède. maa ngi nuyu waa Suède yëpp ak waa waa waa Norvège. ku ko jugé. waaw si télé bi ñu koy seetaan. xamoo ko dóor nga sa loxo si xel. wallaay dëgg la wax naa ko démb yàlla ko yàlla lafal cat. yàlla na ko yàlla lafal cat na ko yàlla lafal cat nit ki ku wax ko. dëgg la ko jugé bi ñu koy gis. ah di naa ko démb wax naa ko ko. yàlla na na ko yàlla lafal ca te barkeel sëyam bi. amiin bi salaay salaam ak mi nga xam ne moom la bëgg yaakaar ko. sëñ Saliou démb de jooy na ba sonn. waaye Mouhamed Niang mën na woy de macha allah yal am nañ fi yóbbante akulaay deux secondes rek. waaw euh, El Hadj Makhtar Seck di xalifi Ngourane. moom euh, bu maam Cheikh Dalay Cala maam Cheikh de Calaw Seck. Mhm. fële ca Ngourane mooy jébbal njaalam si njabootu. Seydina Limaamu ak maam Amari Ndaak Seck ah, si laaxu gi nga xam ne Cheikh Abdoulaye Thiawlaay ak Cheikh Abdourahim Seck def nañ ko euh, elhaaji Cheikh Makhtar sekk muy jébbal njaalam njaboot yooyu yëpp xalifu nguraan bu maam Cheikh Dey Calaw Seck mu mm-hmm. ngi ak toute la umma islamique nee mu leen di jébbal seen njaal mm-hmm. Seyda yow yaay tey tey may ma deux secondes rek sëñ Abdourahmane Ndaw maa ngi koy woo si lii nga wax mm-hmm. Abdourahmane Ndaw Cheikh bi fa tabarakallahu lu ñu si mën a jàpp rek si lu baax Abdourahmane Ndaw yëpp macha cheikh bi ak nag sax nag euh, macha allahu taala Fat Bintu itam sama doom ja nekk Thiès yaayu sëñ Fallou ak Mouhamed léegi sëñ Fallou ak Mouhamed bu ma leen nuyuwulee problème la <laughs> kon sëñ Fallou ak Mouhamed maa ngi leen di nuyu lay damaa bari njaboot Adja Umu Idrissa wax nga ko tey suñu yaay la Cheikh Yacine Doucouré euh, sëñ Abdou Ahad Xasida maam Bousso moom doomu Ami Ndiaye Kara benn ah, Ami Ndiaye Kara benn ah, Ami Ndiaye kooku sama doom la moom xam nga fa nii dafa amoon dëj ñaari yaayam ñoo génn àdduna waaw maa ngi leen doon defal kaamil sax démb di leen ko ñaar Seyda Moustapha Mbaye nag mënul ñàkk ñu sànni ko ñaari kàddu waaw ndax bëgg yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam loolu moom lu dëgg la Moustapha Mbaye sopp na bi ku ko xam yaa ngi ko xamee si yaa leen gën wallaahi Moustapha Mbaye yaa leen gën nga xam ne day tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ku ne gis na vidéo bi gis na itam vidéo bi mu <coughs> di jéggal waaye li mu wax rek nit ku ne li mu bëgg rek lañ koy naxe waaye xolam yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam Moustapha Mbaye ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ku ragal yàlla a sàmm gën la la taxawu lu bi ñoru la wallaay la ku baax nga ku yiw nga ku bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa fekk euh, moom ñëpp a koy def yàlla rek a dul juum mm-hmm. waaye ku bëgg yonent bi nga xam nañ ci dara yàlla na la yonent sallallahu alayhi wasallam gën a taxawu gën sàmm gën la aar Moustapha Mbaye yaa leen gën Seyda mu ngi noonu Alaaji Cissé moom di la si Birane Ndour émission bi du ko raw mu ngi yóbbante nu yoon ak saa su nekk si yow mu nga fële kooku sama càmmeñ la ak Ayta mhm. soxnaam ñu ngi si Belgique samay rakk lañ yàlla yàlla sàmm leen Seyda yow guddal fan te wér rek. wallaay dëgg la jërëjëf jërëjëf Abdoulaye jërëjëf. waaw Abdoulaye jërëjëf Laay Maxtaar Alassane ak Séni euh, kontaan nañu macha allah Oustaz Jile ngi waaj. Oustaz Pape Anna ngi waaj hmm. sëñ Jili Oustaz Jili ak Oustaz Cissé léegi kër gi dafa bëri ay Oustaz. <laughs> Cissé Cissé production Cissé production xam nga yow yaay eh. toog Cissé bàyyi Cissé. <laughs> wax dëgg yàlla dégg naa ko mu firi ci xasaayid yi keroog loo xam ne. Euh, damaa defoon ne Hassan Ibnu Sabit moo taxaw. ku am poste la Cissé wallaay ndeysaan yàlla ko yàlla fay ndax Moustapha Diop ñu ngi nuyu mbokk yëpp ku ñu tuddul nga jéggal ñu waa régie jërë ngeen jëf Fatima tey gisuma ko mais Monti mu ngi fi ak abulaay ak sëñ Mansour di nuyu TFM daal ñun dañu bokk ndey ak baay ñu nekk ay njaboot yu yore madame ba sama xarit bi yetawi laan nag ma ko nuyul bu baax ziyaareel ba ko Adja yetawi laan moom bugguma koo fàtte di nuyu ñëpp sama yaay Yakumba Waly Diagne fàttewuma la yaay booy namm naa la Adja Sagar Sall merci merci mille fois Aïssatou ñaabu Sabina euh, ak waa Tourel bàyyiwuma kenn Fatima kontaan naa di nuyu sama mbokk Haalpulaar yëpp <laughs> di wax naan wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa moytu leen nag cereetam xarit bi <laughs>